su ma doxoon ba dugg biir Vogue. dajeeg Pawlish. moom moo war a gestu laaj ma loo fiy def. mais duma ko laaj mukk looy def fii di fecc. foofu laa doon waxee mais pas xeeb nit ki. man sañu maa xeeb janax. kaas bii daanu léegi nii. palaat bi mu toj. dafa cher te dama ko bëgg. sañu ma ko xeeb te kaas la rek. donc nan lay xeebee xalifa yàlla ci kaw suuf. mais nag waxtaan bu nekk ak ña ko moom. Mhm. buñ doon waxtaan pour defar économie Sénégal. Mhm. su ma fa demoon noppeek déglu moom ma war. Mhm. waaye aw ma fa cër. xalifa Cheikh Mouhamed Mountakha xalifa Serigne Ababacar Mansour. xalifa Cheikh Mouhamed Mahi. dajaloo ngir defaraat diine l'islam ci Sénégal. Wally Seck amu fa cër du fa toog. loolu simple la. mais sénégalais bu la jéppee rek dootul xam dëgg. lu waaye def ci yow mu dont na du dëgg moom sedd na xolam parce que daf la mere. Mhm. loolu du avancé loo réew. nit da nga koy mere ci dëgg. Mhm. ànd ak moom ci dëgg sopp ko ci dëgg. Mhm. moo tax Sénégal euh, ku fi dof danga dem ba doo ndax say nit loo def ñu ne baax na. d' accord kon yow da nga jàpp ni palaato boobu noonu lu ñu programmé la ci ay pexe Mara Niass parce que maa ngi dégg ci say wax nga ni Yves euh, kon yow Mara moo la yebal. moo tax nga wax naa ko ko mu mu nangu ko. Mhm. mu ne ma suma xarit la mu ma moom laa fi nekkal ma ne ko pour man askan wi nga fi war a nekkal mais pas Mara. Mhm. mais loolooy Sénégal. Mhm. Mm, Yves lu mu am expérience ci télé ak rajo. warul mun a invité ancien gendarme. ak Cheikh Ahmed waxtaanee mbiru Serigne Ofa Pawlish. franchement. loolu moom dafa cuune keroog. wala mu tay ko. wala wala wala wala yi nag ku ne ak lu xel xalaat. mais. Pawlish amutoon place ci jotaay booba. Mhm. franchement. Mhm. soo ma bëggee ak soo ma bañee nag. Mhm. amutoon place. ñu gis mu jug di waxtaan ak yow di la joxoñ nga jël say gàllaaj tekki ko gàllaaj yooyu ci say biir wax nga ni su ma ko bàyyi woon après mën naa daanu te su boobaa damay weer nit ki te loolu àgguma fa kon ça veut dire gàllaaj yooyu noonu boo ko bàyyi woon Pawlish day daanu. waaw su fekkee ne yéeneem moo doon dóor ma bu ma jegee. ba tëflitam mun a laal suma yaram. Mm-hmm. day daanu. Mm-hmm. mais pas su ma jegee un mètre. Mm-hmm. dafay daanu kooku amul maslaa sax. waaye mbëggeel bu ma am ci doomu adama ak considération moo tax ma ne ko bu ma joxeñ xam nga tey avec respect munoo su fekkee nit ñi dëgg la ñu bëgg. mais munoo wax ak mag sax di ko joxeñ xam nga ku ne kilifa nga. waaye ku ne du sa kilifa. man duma kilifa Pawlish. duma kilifa ci kanamam. Mhm. mais maa ko mag. te mhm. jàmbur laa. Mhm. na wax ak bañ ma joxoñ. joxoñ ñaar la. benn bi ku ne war na ko bañ. waaye benn bi ñëpp moom leen war a sàkku. mooy bu géwél di joxoñ giiram. ñëpp ko war a bëgg. waaye joxoñu xeebeel ak yabaate. dafa mel ni reetaan. as suxriyatu dafa xaraam reetaanu xeebeel. mooy nu <laughs> eh, waaye Samba. loolu dafa xaram ci lislaam mais lan ma joxoñee même buñ génnee gàllaaj génnee lépp. dafa warul. Mhm. mais nit ñi loolu lépp la ñu tëb parce que Sénégal dañu bëgg fee di veer mhm. dem ci tëkku na ko. Mhm. dafa mën a tëkku nit. tëkku woon na diw. miin na ko. nangam nangam. benn ñaareel ñaw Pawlish yaa baax ak moom kii dafa réew quoi dañoo sonnal. mais amul sax dafa réew dañoo sonnal et après. ku réew kay nga def ko yëfi réew kon dëkk bi kañ lay avancé. mais warut ma woon a joxoñ te loolu laa ko tere bul ma joxoñ. soo ma joxoñee du la jig mu jóg attaqué ma ma teg suma gàllaaj mu mel ni après bi nga defaatee say interview da nga ko joxoon délai ni ko fii ak 3 jours loo gis xamal ni man la te fi ak 3 jours bu la dara dal ma teg sama galaaj te tey la ñu am 3 jours te ba tey police a ngi dox soxlaam. dëgg la kay dama ne rek bu ñu toogee ñetti fan wala ba semaine. Mhm. dara jotut police te mu joxoñ ma. Mhm. ah kon dootul jar ma takk galaaj kon day doon ni mu ko waxee mu ne galaaj sawkat lan la. Mhm. looy takk pour mu protéger la mënu laa protéger mu ngi mel ni saa yoo génnee ànd ak say garde corps ñu dóor la. Mhm. loolu leen doyee di leen fay. Mhm. du ko jar. Mhm. c'est ça foofu laa doon waxee. mais man mënuma ci Pawlish dara jéemuma ci moom dara mais li ma takk nag moom xam naa ko. waaw te Macky Sall moo gën a informé. moo ëpp sécurité ci réew mi. lu muy doyee garde te daf koy takk ba pare sol gilet sol xaftaan toog. pour lan. pour protection. léegi nag moom sañ naa wax ne bu kenn ñëw ci man pour daane ma soo ñëwee rek am na ñu la war a dóor. Mhm. c'est ça pas Macky Sall a ngi menacé nit ñi. Mhm. di nga dem ci soldaar xale di raam di daw dem ci fetal mu daw dem pas xale bi day rey nit. Mhm. mais fetal bi la xam. moo tax soldaar bu yeggee këram day séparer bal bi ak fetal bi. ngir xam na danger pistole waaw man xam danger sumay gàllaaj moo tax dëkkuma ak jabar. dëkkuma ak doom dëkkuma ak kenn. ndax ndaxte lii may xeex soo siy xeex dafa am noo war a taxawee ngir mucc. Mhm. bu dul loolu ñu rey la nga dee léegi. Mhm. am na ñu ma gënoon siw ëppoon mhm. ma bay rek nit ñi gën ma leen a bëgg. tey ñu ngi faju ñii ñu ngi uti dépense ñii déggatoo leen. dama xam nu réew mi tëddee. moo tax may gëm def li ma gëm. su yàlla namee ci man mucc. man maa ngi koy sabablu. te yàlla bu mu ko ñàkk a namm ci man. Sénégal noonu lay demee. waaw tey Cheikh Amir foo tourné gis ko. bés dina ñëw doo ma gis. waaye bëgg naa boo ma gisut fekk nekk naa ci lu ma neex ba taluma la mhm. mais pas ma nekk ci li la neex ba tal nga may dimbale mhm. moo tax du ma foyee gàllaaj mhm. du ma ko foyee mais mais tey benn Pawlish euh, du cadre xeebel mais tey Pawlish ak Ahmed boo koy wax c'est différent maanaam seen image c'est différent ci ci ci déggin ak ci Sénégal est-ce que tey bi nga ñëwee gis Pawlish ci plateau bi nga xam ne kii boo ko waxee da lay dépassé est-ce que jarul woon nga jël seen matukaay génnaat plateau bi balaa lii xew. non ci communication loolu baaxul. non doo gedd plateau ndaanaan laa yow it. Mhm. koy gérer. Mhm. mais Yves réussir na buzz bi émission mu war a am xam nga dafa xewi kenn seetaanatu ko. Mhm. mais réussir na buzz boobu. su dee loolu la ci bëggoon moom gañaa la. mais man réussir na li ma ne Pawlish amu fa cër ndax waxi dof rek la doon wax. donc si dëgg-dëgg. Pawlish mooy perdant. mais ci bëtu sénégalais moo gagné parce que den maa mere. man ñenn ñi. mais am na ñoo xam ne buñ ko jàppoon rey ko de. ndax lam ma def noonu. Mhm. bari na ci nit mhm. mais loolooy Sénégal quoi moo tax man du may waxee ne ñëpp nii leen mel. Mhm. non non non li Pawlish des am na ñoo xam ne bu ñu ko gisoon may ko milliard. ndax dañ cee bëgg. dafa sedd seen xol. mais mu neex ma parce que man saa nit bëggee ci man rek ma bëgg. mais am ñoo xam ne bu ñu ko jàppoon lekk ko bu yàgg ba digéroo ko. ndax xam suma daraja. xam suma maqaama bëgg ma te fonk ma. am na sax ñu ñu ci jooy. loolooy àddina. ku ne ak ni nga gisee nit. mais DJ Yves réussir na émission am am na bës bu émission bi daatul am. Mm-hmm. man réussir naa bi ma ne amu fi place ndax waxu fa xam-xam. Mm-hmm. ay maa la gën a xew. Mm-hmm. maa la gën a siiw. sawkati lal ci débat wu xam-xam bu sérieux. kon la ma waxoon yeey naa ko. mais moom Pawlish lu mu gañe mbaam xuux yi yi xamut àddina rek ànd ak moom ci lim def. mais kuñ ko ci defoon sa baay. nga xam ne Pawlish dafa juum. d'accord lan moo tax Cheikh Ahmed heure bu waxee rek. nga gis ñiy jug di ko attaqué ñiy jug di ko xaas ñiy jug di ko saaga lan mooy problème bi li mu ànd ak Macky Sall beddi Sonko la wala lan mooy problème bi. non dafa bari waaye yàlla su la mayee. Mhm. dafa lu muy booleel may yi. Mhm. Cheikh Tidiane Chérif dafa séddu ci cëri yàlla bi. Mhm. ba kenn xamut fu mayam toll. maxtuum la ñuy waxtaane waaye al maktum kenn xamu ko. bési yowmal qiyaam la ko yónantu di wax Cheikh mais yàlla daf ko nattoo noonu. man yàlla mën na toog bu ma doon dox ci ndox mi sax ñu ne yaa ngi ñuy te ndox amul poussière. Mm-hmm. dama xam suma tabiya li ma yàlla booleel. Mm-hmm. biñ may saaga di ma tuumaal di ma xas boobu ñëwaguma internet. Mm-hmm. ci nii laa juddoo. mais nag fa ma juddoo kër waliw yàlla bu mag la. amul kenn ku ma yaroondoo tey ma xool la bëgg a mel ni yow. ci wërsëg ci xam-xam ci jëf ci relation. bëgguma ko. Mm-hmm. loo am nag doy na ma mm-hmm. jëlal mm-hmm. mais man bëgguma mel ni yow musuma gis ku def vidéo xas ma man ma xool la xam ne kii de suma ma sañoon mel ni moom amut Sénégal ba mu jeex suñ ma doon laaj ni kan nga bëgg a mel ñetti nit la Imam Hassan Cissé Seydi Barham Diop sëriñ Murtada Mba eh, sëriñ Maam Moor mu sëñ Murtada ni Sénégal di rëy rëy ni ñett laa bëgg a mel bu sa xel demee ci Baye man bëgguma mel ni Baye ndax dafa jomb. mënut mhm. ta nekk. Mhm. bu sa xel demee ci sëñ Touba Maodo mais ñetti ñi rek laa bëgg a mel ku dul ñii rek man bëgguma mel ni yow. Mhm. xam nga nag bu sa bët tollee foofu. nga yëg sa bopp ne fa nga toll. da ngay am kontaan ak satisfaction. boo gisee koo xam ne leer na la yow ñi nga yar. leen xam-xam. bëgguñoo mel ni ñoom. est ne am na ay commandant man maa leen jox wér ci Sénégal. ay commandant ay commandant mm-hmm. ci biir armée ci biir gendarme ay commissaire mm-hmm. ay adjudant mm-hmm. maa leen di jox wirda maa leen di tarbe ñu sol seen tenue dem te da ngay ñoom di ma saaga ñu noppi te yéen journaliste yi ku ma ci dégg interview mu boo fi jógee bëgg ma te lu ñu wax ci man nga ne du dëgg waaw loolu la xam nga am na nooy doxee pour l'instant nit ñi duñu xam mais soo seetee commentaire danga daan man commentaire yëpp laay riir mm-hmm. dañuy gis ku ma daan saaga saaga léegi danaan noo waa ji dama ko faa ko waa ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mm-hmm. mais moom la soo seetee wax ne ni boroomam mee kooma tuulaa bu ko long mm-hmm. bu daw bi guddul duñ xam ko mën a des ginnaaw ñoom Mara dañuy jël ndaare am na ko fi xewoon daan woote woo Serigne Saliou taan da daan xeesal waaw di sol gan da nga ko déggati déggatuñ ko hmm. comprendre nga waaye Cheikh Ahmed dafa bëgg waxi awra. Mhm. moom leen dóoroon Kaolack. Mhm. moom gaañ bi moo daan Sonko du falu moo daan Sonko du mhm. mais dañu dem ba mu yàgg. tax day tax mu yeey leen. bi Cheikh Tidiane si toogee gàmmo. naan dafa ànd ak setam mu naan ko maam ko doxot nit ñi di sëgg naan xay sëriñ baa ngi wax ko doxot. mais tey justice. bu dëgg leeral na ne Cheikh Tidiane si yee na nit ñi. noonu la rek. jamono ngi ñëw. Ahmed Khalifa ak Cheikh Tidiane si la ñuy gën a déglu ci Sénégal. Mm-hmm. ndax fi science di toll. Mm-hmm. islam da koy fekk te ñoom raw neen jamono ji. Mm-hmm. man dama raw suma génération kenn du am at yi ma am wax li may wax. at yi matul 35. ci lay yem. mais boo ma ne jàkk foog ne kii am na 50 ans ñu bëri paa bi leen may wooyee. mu neex ma nag. mais sénégalais yi dama leen a xam. xam leen bu baax a baax a baax a baax a baax baax. Mm-hmm. gis nga sëriñ yi. Mm-hmm. ñi leen di gën a jege gëmuñ leen. Mm-hmm. dañoo am intérêt ci ñoom. ñi leen gën a gëm mënuñ leen a gis. ñi leen di politiquer saa ñu leen bëggee gis-gis leen saa ñu leen bëggee dégg-dégg leen. donc Sénégal a jaxasoo dafa dëpp. pour ñu dipparti ko nag mënuma ko mais man damay nekk suma façon ba ëllëg su génération ñëwee. ne waa ji ñun moom leen bëgg a déglu. moo tax bi ma leen xamee. bëgguma seen ngërmande. Mhm. ndax ku la tàccu tey xas la suba. Mhm. ragaluma seen xalab. Mhm. ku la xalab tey fataat la suba. te ma wax la dara de ñu bëri den may xalab bu caméra yi wàcc ñu ne ma nommé woon a waroon a waxee nii quoi nit ñi dañ lay mere. sénégalais dañuy jaamu nit ñi. parce que nit ñi ñoo lay jox jasneer yooyu sol. ñooy feesal say gàmm ñooy non non non man awma intérêt ci ñoom. man sañu ta bañ la nangooy ndeyam mm-hmm. boo bëggee taxawal mu dëgër foog nga jënd suma garab boo ko jëndee ma am xaalis mm-hmm. boo ma amee xaalis te suma diine leer na lan lay soxla mm-hmm. man leer na ma ne àdduna du dara lu mooy jot bakkan bi mën a jaamu yàlla rek lii mooy àddina mais du dajalay étage tey euh, loo ma mere mere boo bëggee kër gi neex nga def mil pouces wala li dëng jubbante ko da ngay ñëw gisee man ma jaay la nga diw ko tane pat moo tax man lijjantiwu ma sénégalais parce que wootewu ma mbooloo. Mhm. su ma wërsëg nekkut ci ñoom. Mhm. léegi la ban intérêt laay am bay daw. Mhm. mais am na ñoo xam ne dañuy liggéey ci télé en tant que oustaz amuñ sax salaire mais neen am visibilité bi nit ñi seetaan leen rek. ñu naan Maodo mu ne su ko defee taalibe Serigne Touba def la xarit. di la mosal si seen wërsëg. man duñ ma mosal damay mosalaate. ndax ñaari loxo am bu féetee suuf ak kaw man bëgg ma suma bos féetee suuf. su ma sëriñ doo ma may. Mhm. su ma waajur doo ma may. Mhm. su ma xarit doo ma may su ma jabar doo ma may man. Mhm. du ma bàkkoo ne maa leen di may de mais danaa am jom ba duñ ma may. ndax jabar warta may jëkkër. mais sañ na koo dimbali. sëriñ warta may taalibe alal. mais sañ na koo dimbali. waajur sañu tam warta may taalibe doom. alal mais sañ na man nag ñii ñëpp dama leen jox ngant. bu ma leen joxut téye la ma yor te mandu ci ñoom. nii laay dundee. moo tax ma libre. li ma bëgg wax laay wax am na lu may wax nit ñi xam nañ ko de mais ni ma ko ñemee ñemewuñ ko parce que saaga yi la ñuy daw. Mhm. bu ñu leen saaga dootuñ seetaan seen émission du dox. Mhm. man nag ñu seetaan ma seetaanuñ ma sama fu na àndala gi jàll rek nit ñi di jënd. Mhm, d' accord mu ngi mel ni ñu ngi may li ñu mayoon ci waxtu daanaka euh, mu ngi jeex euh, tey sa mot de la fin lan ngay tàggatoo. <coughs> waa people 221 dañoo sonn. ñoom duñ jaaykati garab. mais xam nga site bu mag la boo xam ne dafay jàll fu ne. nit ñi di leen woo di leen sonnal maa ngi leen ciy jéggalu. Mm, def naa interview fu bari waaye du may am retour bu may am ci yéen. Mm-hmm. kon ku bëgg ci garab bi boo leen jotee. Mm-hmm. ñoom mën nañ laa jox numéro garab bi. Mm-hmm. wala ñu jaarale la ci yoon ba nga am. ñu jub leen ñu màndu leen. mais bu fekkee ne tamit. da ngeen bëgg a jot cheikh bi directement. su dee ci wàllu commerce. ci nga ma mën a jotee. xam nga Sénégal. allo waaw allo cheikh bi waaw man de dama laa bëgg baal ma fii laay jaaree garab ñaata nga bëgg ah sëñ bi ñàkk nga kersa di maa ngi lay jégalu damay jaay karaj la wax. Mm-hmm. commercial mm-hmm. ma di ma wax cofeel. Mm-hmm. amal suma numéro privé. wala cofeel gi denc ko di ma ko ñaanalee yàlla. xam nga lu nit ñi nekk man nekkuma ci. ay dama la sopp di demalante ñëwlante man doxuma ci loolu de soo ma soppee. yemal ci vidéo bi rek <laughs> boo ko seetaanee nga ñaanal ma cofeel googu dama koy yëg. mais pas danga ma sopp rek ñu demalante ñëw. Mm-hmm. man dafa am lu ma def nii. Mm-hmm. léegi su fekkee yéen ñi ma sopp yëpp dama war a wax ak yéen jëlal kenn ku ne cinq minutes. Mm-hmm. ci téeméeri nit. loolu junnee minute la. nga di ko wax. te wax day wàññi xaal. damay dem ba fay fay du xeewi ci bëti nit ñi de. mais li ma jokk ba téefu dëgër. dama koy ñàkk. sëriñ jaamu yàlla ba mbooloo mi ñëw mu mujjee rekkeeku. surtout subaar jotee am nañu toog sëriñ bi da nga koy xool du julli. Mhm. bugguma loolu. Mhm. waxuma damay julli déedéet dama ne bugguma loolu man li ma fal. Mhm. ba ma mel nii ci loolu laa bëgg a continuer. donc boo ma bëggee rek may ma espace. man moom boo ma waxee lu ma naqare dama lay bloqué. dootoo ma déggati. mais yow mi ma sopp. da ngay gis ñoo xam ne sëñ bi maa ngi lay message ak tontu woo ma. mais munuma tontu ñëpp te bugguma tontu ñëpp te parewuma ko. su ma digganteeg suma borom. moo ma gënal maag nit ñi. ndax gisuma nit bu ma amal njëriñ. donc neen comprendre suma point de vue. commercial. commercial la. jandoo jaayoo bu ci woote. lii mooy civilisation. mais lii mooy lislaam <laughs> mais nag den lay woo sëñ bi man jë yow laa soxla de dama laa bëgg de pourtant maa ngi xuloo ngir yow de mais merci. da nga maa bëgg. jaamu yàlla laa yàlla moo lay fay. te wallaahi lazim fu waaye tollu bëgg ma. soo jokkante koo ñaan yàlla ci man yàlla defal sa soxla. nga bëgg ma mu sell sa xol mhm. nga wéet ne yàlla yow mi am maa ngi lay ñaan mhm. ci barke sa jaam bële Cheikh Ahmed mhm. walla yàlla fa sa aju lu leer la donc bugguma bëggante bi di am demalante ñëwlante man bëgguma loolu kenn ku ne na jàpp mbokkam téye say mbokk dimbalante ak ñoom bu ñëpp téye seen mbokk àdduna dem man. maa ngi ci la ma war a ne. bu bër setee huit heures laay toog ba huit di jaay suma garab. dafa am benn influenceur mu ne ma may ma dara. ma ne ko da nga bëgg xaalis mu ne ma ne ko ci garab yi laay xëy kaay ma lay jox butéel boo jaay am cinq mille. ah te ma la ko bàyyi rek bi yii de mënu ma ko. mais nangu nga maa bàyyee li may liggéey mais mënoo ma bàyyi lu nekk suma poos. ci la ma ba. man nii laay dundee. lii laa gëm te kafuma ci. képp ku ma bëgg. dencal mbëggeel gi sa te di ma ñaanal yàlla. ñaan yooyu dafa may dal. Mhm. mais su dee ñi ma bëgg yëpp dañoo bëgg xaritoog man làng waxtaan. Mhm. benn ñaareel ba. Mhm. soxlawuma. ku ma conseil ni ma war a waxee ak nu ma dul waxee lu tax. mooy am na ñu may déglu. su paasee alquran ak sunna. am naa ay kilifa am na ay xarit ñooñ doy neen ma. sa conseil téyel ma ko. parce que xamoo may kan xamoo ci lu may dox xamoo lu ma bëgg. mën nga ma conseil lu rafet. fekk baaxut ci man. conseil bi téye ko. Mm-hmm. def ko ñaan yàlla rek. Mm-hmm. gis nga boo maa ngi jàng benn fàtte ñaanal Cheikh Ahmed yal na ko yàlla jubal loolu moo ëpp doole jot ma na ma bàyyil ni ngay waxee. Mm-hmm. maanaam li may wax lu yomb la du dama vulgaire du dama ñàkk kers mais dafa am nu senegal di demee du noonu. dafa am neneen nu mu war a demee nu rafet. yaa ngi comprendre donc mm, loolu laay tàggatoo garab yi tey la gën a baax tey la gën a neex. Mm, tey la gën a jaar yoon ba pare xam nga man ni ma Sall la yokkee lakoromasen bi. <laughs> ba boo ko boo ko cëmbax waa sonko yi man noonu laa yokkee doosu doy waar ak ànd laa bëri mm-hmm. parce que nit ñi dañ ko bëgg di ko consommer mm-hmm. li ma ci gën a neex nag mooy nit ñi man la jënd mm-hmm. dañ naan cheikh bi laa bëgg a dégg moom du caaxaan man a ah, kon Sénégal dañuy dof dof la bu ma ne sonko ñu ne damay fen bu ma ne garab ñu ne wax na dëgg <laughs> tey rek ma rey leen moo tax dama yokk doos bi pour mu gën a dox gën a baax maa ngi am kontaan di fi teew Euh, man nag euh, boo ma ne li ñu cërale ci waxtu jot na daf may maa koy tey di yokkaat beneen vingt minutes. non non déedéet fii sa la. <laughs> ndaxte bëgg di waxtaan ak yéen. ndeysaan su fekkee ne yow mi doon seetaan da nga am cofeel ci ñun. Hmm. jërëjëf. Hmm. boo amul cofeel ci ñun muñal. te hmm. ñaanal ñu yàlla. people 221 moom. incha allah ak garab yi fii man sama patron sax léegi dama naan ko émission mu naan. non yéen yéen léegi représente maanaam léegi yéen partenaire officiel ngeen <laughs> léegi ku jaar rek su may garab nga jënd partenaire officiel mais nag daw média. Uh-huh. maanaam pour bañ a daw média. Uh-huh. nekkal ci lu jub rek. Uh-huh. wala boo jubadee il faut nga nangoo assumer. ka da juum nit matul. waaw mhm. daw média mhm. ñaari façon la daw leen buñ la gis mhm. ak neexal ñenn ñu corrompi la waxal la li nga bëgg a wax ñooñ moom amuñ valeur ñooñ la ñuy wax caga journaliste caga du koy jaay boppam rek caga sëriñ am na caga journaliste am na <laughs> caga ministre politicien am na képp ku nekk ci mbir te amoo ca valeur rek caga nga ci loolu xam nga yaa ngi yaa ngi gis politicien caga yi <laughs> taxaw xas ma ki démb ànd moom caga nga politiquement journaliste buñ corrompi ngay waxal ni lu dul dëgg. caga nga donc caga ji dañoo bëri ci dëkk bi mais am na ay doomaraam am na caga am na doomaraam doomi xaraam doom ju xaraam ak doomaraam du benn. Mm-hmm. doom ji xaraam. Mm-hmm. mooy koo xam ne moom dafa xaraam. Mm-hmm. ba euh, arrangé wul baayam. doomi xaraam mooy ñaari waajur yu am doom ci lu xaraam. doomaraam. mooy koo xam ne la muy woote gëmu ko. donc fii dafa bëri ay doomaraam <laughs> c'est ça.